donc il faut que ñu dëkkilaat l'espoir chez nos jeunes nos jeunes sont dans les usines en Turquie nous avons du bois il se vend en Chine c'est deux cent milliards et quelques qui sont importés en matière de bois sur des portes sur des fenêtres sur des sur des mobiliers alors qu'on pouvait les concevoir et les fabriquer au Sénégal mais qu'on refuse qu'on renforce les menuisiers sénégalais ñu jox ay matuwaay ñoom ñu liggéey ko fii jaay ko fii deux cent milliards et quelques nga koy importe ci ay table yi nga xam ne suñu ay menuisier mën nañ ko fi defar